పేలాడో dara foofu waaye jéegol dama ngi bëgg a jël saare bu ma dag li war alors gars yi on est de retour sur Télé Sénégal en fait tey lu ñu indi benn expérience sociale lu ñu indi on va se passer pour quelqu'un bi nga xamante ne day dër de voir la réaction des Sénégalais est-ce que ñoom am nañu patience kuy dër buy wax ak ñoom est-ce que dinañ ko ree wala duñ ko ree moo tax tey on on il est nécessaire que ñu def expérience sociale bi xool la réaction des Sénégalais kuy dër bu leen di laaj parce que am nañu ñu jógalee soxna soxna Saba fee laa doon laaj li liberté carte la la la la la la la la la la doon laaj. liberté carte su ma demee foofu dinaa am parce que mu yóbbu leen liberté carte affaire moom loo réer rek boo fa demee gis. ah. sa sa sa va grand. liberté 4 la la laa doon laaj. liberté 4. bu gisee liberté 6. ah liberté 5 donc liberté 4 ça fait par là je crois. comment je devais faire. waaw te dama lii. na ngeen def. li li wér kàddu la la la la la la. waaw. dama jëkk laal non. ça va grand. yaa ngi ci ci ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm maa ngi jàmm. liberté. ah liberté 6. 4 4 la laay laaj yaakaar naa nii la. nii la. nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu may def def ba ba ba dem foofu. voilà da ngay de topp tali bi rek tout droit. waaw tout droit rek. waaw ba liberté 4. Hmm? waaw. ba foofu nu waaw ba foofu waaw daa mel ni waxtu la yaakaar naa nii la de oh. liberté quatre ni ni ni laa def waaw naa ko de jërëjëf waaw jërëjëf dégg nga camp bi mu ngi ne waay comme demee nii dara. saa sa wax bi waaye jéegol de ma ngi bëgg a jël saa rek drapeau yi ah. foofu foofu foofu foofu mooy taal. merci ah. ma laaj ñu ñaar ñi. na ngeen def. liberté carte la laaj.

am fii directement. waaw da ngay dem ba fay ba réew mi di nga am kalaandoo. kalaandoo ñaata la. rond-point bi daal. ça va. liberté kat laaj liberté kat waaw waaw ba ba demee liberté six waaw tout tout droit waaw kaay kawara kasa merci ah da nga doon tooñ yow yow yow garaaw yow garaaw ga de. Kawara kase la quoi. dagg di ma naan Liberté 6. lépp jàmm jaay kontaan naa ci gars yi ñoo ko gisandoo am na ree am patient am nañu waxtaan ak ñun am nañu woon ñu yoon bi c'est juste pour vous montrer ñun ñëpp ñoo ngay dër ngay ñàkk dër ngay dégg ngay ñàkk dégg ñun ñëpp ci société bi la ñu bokk donc nañ leen boole suñu biir xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk société ça a été un plaisir de vous retrouver Télé Sénégal nous vous donnons rendez-vous prochainement ci yeneen parank ci yeneen anam derrière la caméra Rachid Pro 3R gars yi bu ma leen wax activer notification bu vidéo ngeen mën gis jaa ngeen jëf